jotaayu tafsir di rafetlu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar eh, di tafsir alquran ñu ngi rafetlu seen xam-xam di ñaan yàlla mu yokk seen xam-xam ñaan yàlla mu may leen ak sell sellal képp koo xam ne jaar nga fi di tafsir alquran wala ngay wax benn fas benn fànnu xam-xam ci xam-xam yépp kenn ku ci nekk eh, yal na yàlla defal la tuyaaba ju baree baree bare may la ak sellal may ñu ko ci wax ak ci jëf ñu ngi taxawoon su yàlla di waxe démb suñ jotaay bi tilkal jannatu allati nuurisu min ibadina man kaana taqiya maanaam yàlla bi bi mu ñu melalee àjjana gi nga xam ni daf koo dencal ñi nga xam ni euh, dañoo tuub gëm di jëf jëf ju baax àjjana jooju yàlla di ñu wax mooy jan yàlla ni tilkal jannatu àjjana joojee tilka aljanna tilka aljannatu tilka aljannatu maanaam ajjana joo ji nga xam ni allati ja nga xam ni dañ koo dañ maanaam dañ koy doon na suñu jaam yi ci suñu jaam yi kan ka ca ragal yàlla kon léegi ajjana ji nga xam ni yàlla daf koy jox da koo dig naw koo jox ñi nga xam ne ñoo ko ragal yal nañu yàlla boole ca ñoo ñee ko ragal moo tax yàlla ni tilkal janna allati nuurisu min ibadina nuurisu ñu ngi ko jële ci aarasa yuurisu maanaam bay doon na leel bu fekkee nit ki moom moo moo koy doon nag moom moom daf lay day wax narisu narisu bu fekkee daf koy doon na leen keneen nag keneen la koy jox mu ni nuurisu maanaam ci bu dee ci alquran yàlla subhanahu wa taala ñu wax ni nuurisu maanaam àjjana ji dañ koy jox ci suñu jaam ñi ka nga xam ni dafa ragal yàlla kon boo seetloo wàllu dugg àjjana ak xeelu ci àjjana ci alquran lu ci bare bare bare fu ko yàlla di waxe rek ña dugg daf leen di melal melokaanu ku ragal yàlla da ngay seet inna lil inna al muttaqina fi jannatin wa uyun axirina ma aataahum rabbi inna almuttaqina fi jannatin wa naim faakihina bima aataahum rabbuhum inna lilmuttaqina mafaadan inna lilmuttaqina inda rabbihim jannati naim bari na ci alquran wa yunajji llahu alladina ittaqaw bi mafaasatihim wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara inna almuttaqina fi jannatin wa nahar tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kaana taqiyan kon gis nga yàlla na yàlla boole ci ña ko ragal ndaxte kon ndaxte ndaxte taqwa moom moo gën a kawe ci euh, jikko yi nga xam ni moom la ab jullit war a jikko woo ba ci gën a kawe mooy ragal yàlla moo tax yàlla ni inna akramakum inda allahi atqaakum ka gën a tedd ca yàlla ci yéen mooy ka ko gën a ragal ka gën a ragal yàlla wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik aaya bi nag moom booba jibril dafa toog lu yàgg ñi nee na am na ñu ni fukki fan ak euh, ñaar maanaam aaya wàccul fukki fan ñaar aaya wàccul ñàkk a wàccug aaya euh, amul leen lu muy maanaam loolu yàlla subhanahu wa taala moo defee noonu yàlla moo defee noonu ñëw na ci euh, riwaayati ibnu euh, bi ñëw na ci ay riwaayaat li ko tax ñëw na ci riwaayat ibnu abbas comme ni ko imaam ahmad eh, ahmad ibn hanbal indee ci musnada mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni maanaam ibnu abbas nee na yonente bi nee na eh, dafa wax jibril ni ko maa yamnauka an tazuurana akthara mimma tazuuruna lan moo tere nga ziyaara ñu lu ëpp li ñu doon ziyaara ñëw na ci riwaayat eh, Ikrima tamit ni bii nag moom dëgg yàlla eh, mursal la boo xam ni eh, Ikrima sësalu ko ci kenn te Ikrima gisul yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu Ibnu Abbas la moom dafa yéex a indi dafa yéex a wàcc ba mu mat ñeen fukki fan mu wàcc yent bi ni ko ma nazalta xatta staqtu ilayk maanaam bi ni ko yow de da ngaa gëj a wàcc ba ma namm la jibril ni ko bal ana kuntu ilayka ashwaq walakinni mamuur jibril ni ko maa gënoon a namm wante nag man nag day lay digal rek moo tax jibil ni ko wama natanazzalu ñun dey duñu wàcc mukk illa bi amri rabbika lu dul sa ndigalu borom kese man dey awma lu man maanaam man jibril awma lu may eh, di ñàkk wàcc wala may wàcc wala may yéex wala may gaaw déedéet man daal maa ngi ci li ñu li li nga xam ne moom la ma suñu borom digal bu ma nee wàcc léegi ma wàcc bu ma nee xaaral ma kon nag kon nag suñ wàcc ak suñ yéex a ak suñ ñàkk a wàcc yépp ci loxol yàlla subhanahu wa taala ci ndigalam la yàlla moom jibril nee na lahu ma bayna aydina yàlla moom moom li suñ kanam wa ma xalfana ak li suñ gannaaw wa ma bayna zalik ak li ci diggante bi ñu ni euh, mufassiru ni nee nañu lahu ma ay aydina mooy ad mooy mbirum àddina jibril mbirum àddina daf cee daf cee euh, daf cee def lu bari ndaxte yàlla daf ko yónni ci yent yi mbirum àddina jibril nee na yàlla suñu borom moo ko moom suñ bi oma xalfanaa ak ak suñu gannaaw li ñuy xaar te mooy allaaxira mbir moomu mbiru allaaxira boobu suñ borom moo ko moom wa maa bayna zalik léegi maa bayna zalik nag am ñu ni ñu bari ci borom xam-xam yi nee nañu mooy diggante ñaari an nafxa fi suuri maanaam ëf diggante ñaari ëf yi ndaxte dañuy ëf nit ñëpp génn àddina ñu ëppaat ñu dekk diggante boobu nag suñu borom moo ko moom maanaam yàllaa moom lépp loolu borom xam-xam yu bari wax nañ ko ci mel ne ñoom Abul Aliya Ikrima Mujahid Saïd bin Jubair ñoom Qatada ñoom Suddi ah, daani ku bari ci borom xam am ñu ne wa maa bayna zalika mooy diggante àddina ak alaxira diggante àddina ak alaxira kon léegi gis nga ay ay ay riwaaya la yoo xam ne ñuy jële ci Ibn Abbas léeg-léeg Saïd ibn ñu riwaaya ci moom ne nii la ko wax nii la ko gise bayna nafxatayn léeg-léeg ñu ni euh, ñu ni déedéet moom mi ngi ko gisee ci ni diggante àddina ak alaxira xam nga diggante àddina ak alaxira yàllaa ko xam subhanahu wa bu fekkonte ni doomu aadama la ñu man man ma ni diggante àddinaam ak àllaaxiraam moom mooy barsax barsax nag euh, malaaka moom du am le lu dul li ko yàlla digal mu le muy xéewal xéewale waa barsax ña cay jullit wala safaama ña ña cay dul jullit bu fekkente ni barsax yàllaa ko moom subhaanahu wa moom diggante àddina ak wante euh, jibril lim lim nam rek mooy yàlla moo moom lépp moo tax mun lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna dalik wa ma kaana rabbuka nasiyan wa ma kaana rabbuka nasiyan sa borom de fàttewula de nekkul sa borom sa borom nekkul ku yàlla nekkul kuy fàtte jomb naag di fàtte wa ma kaana rabbuka nasiyan sa borom ñëkkul mukk kuy fàtte kon euh, ñàkk ñëw gi wala yeex gi tekkiwul dara loolu nag euh, yàlla mi ngi koy leeral ci suratu duha wadduha walleyli ida saja maa waddaaka rabbuka wa ma qala maa waddaaka rabbuka wa maa qalaa waaye boobu mooy firi wa kaana rabbuka nasiyan sa borom fàttewul yàlla nekkul kuy fàtte jommu nag di fàtte sax nag yàlla moom subhaanahu wa taala rabbu samawaat mooy boroomu asamaan yi maanaam juróom ñaari asamaan yi yàlla seen borom wal ard wal ardi ak suuf yi léegi suuf yi ñaata lañ est-ce que juróom-ñaar la waaw juróom-ñaar la yàlla tuddul baatu juróom-ñaar bi ni aradi na déedéet wante junj na ko ci alquran euh, sunna ñëw na euh, tamit daa koy tudd mu leer nañ ñi maanaam yàlla subhanahu wa taala dafa ni allahu alladi xalaqa sabaa samawatin wa min al ardi mislahunna mislahunna maanaam mislu samawaati wal ard kon léegi euh, yàlla bind na ci suuf yi lu toll ne asamaan yi mislahunna na ce que léegi loolu euh, ci wàllu melokaan la déedéet ndax suuf si ak asamaan si bokkuñu ci melokaan wante adab nag ci adab dong lay mën a ci wàllu ci wàllu eh, juróom-ñaari suuf ndaxte suufi juróom-ñaar la kooku yonent bi leeral na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man iqtataa shibran min al ardi zulman tuwiqahu yawma alqiyamati fi sab'i aradin koo xam ni da ngaa nangu suufu jàmbur suufas jàmbur nga nangu ca lu toll ne shibr shibr mooy diggante sa baaraamu déy bi baaraam bu mag bi ak baaraamu sa san bi nga xam ne mooy sàbbal ñaari baaraam yooyu xam nga boo leen sor boo leen sorienté boo leen so soreelee am looy natt lu tol noonu mooy moom la arab di wax sibr lu tol noonu dong ku ko jël ci terrain jàmbur yàlla dana ko ko takkal yawmal qiyaamati ci juróom ñaari suuf loolu mooy lan da ko koy mbugale yawmal qiyaamati ci juróom ñaari suuf waaw léegi koo xam da danga da ñëw rek tabax ci tabax jàmbul nag mu wax la te nga indil ko ay foo kayit nga ni maire ma ko jox fekk kii moo ko moomal boppam mu fexe ba laba ay kayit ba jël ko yàlla jox ni ku ci jël tuuti maanaam lii yonent bi wax laa laay wax yonent bi li mu wax ni lu toll noonu ku ko jël ci suuf loolu matul sax Euh, matul dara maanaam benn mètre benn metre benn mètre nii rek boo ko xaajee euh, xanaa ma boo ko xaajee ñaar fukki xaaj xanaa mooy mooy tolloog benn loolu du xanaa muy tolloog sa loxo benn loxo tenk loxo du lexo tenk bi rek sa baaraam ba si ngay takke moom diggante boobu lu toll noonu ku ko jël suufu jàmbur ci tooñ yawmal qiyaamati dañ ko koy takkal ci lan juróom ñaari suuf lañ ko koy takkal mbugale ko yawmal qiyaamati shahid bi mooy dégg nga juróom ñaari suuf fi sabi arab yi la yonent bi wax sallallahu alayhi wa yàlla mooy rabbu samawati wal ardi wa ma ak dig li li na ci diggante asamaan ak suuf li na ci diggante asamaan ak suuf yàllaay borom yàllaay borom yàllaay xaaliq bi yàllaay mudabbir bi yàllaay xaakim bi yàllaay mutasarrif bi lépp yàllaa ci def lu ko neex yàlla moo moom yàlla moo bind yàlla mooy settantal li ci nekk yàlla mooy kii taxaw ci lu lu ne ku ne mooy qayyumu samawati wal ardi qayyumu samawati wal ardi wa ma fihinna qayyumu samawati wa ma aslalna wa qayyumu al ardina wa ma aqlalna kon gis nga yàlla mooy boroom lépp rabbu kulli shay'in daal ngay wax rek boo bëggee noppal asamaan ak li ci diggante asamaan ak suuf ñoom ñaar yépp yàllaay borom ci diggante asamaan ak suuf ngelaw leeg montagne yeeg lépp lépp loo xam diggante asamaan suuf la rek yàlla ko moom subhaanahu wa taala moom lépp yàlla mooy ar rabbu azza wa jalla kon nag faabuduhu faabudu jaamu ko yow Muhammad sa sa xeet roy la ci jaamu gi faabudhu jaamu ko xam nga bamir bi ci yent bi la jëm maanaam bamir mu xaafat bi ci yent bi la jëm wante euh, bu jëmee ci yent bi da ko yàlla def ko digal yent bi ngir xeetam wépp topp ko ci ni muy jaamoo yàlla xeetu xeeti topp ko ci noonu kon yàlla bu ne yent bi jaamu ko rek te yàlla wax ñun nañu roy yent bi Euh, li ñu yent bi indil nañ jël kon bu kon kon léegi yàlla bu ne yent bi jaamu ko rek kon mooy wax wax na ko wax na ko ñëpp jullit ñëpp wax na ko àddina bépp faabuduhu na nga ko jaam sa boroom wastabir na nga muñ li ibadatihi ca jaamu ko maanaam yàlla subhanahu wa taala boo koy jaamu da nga koy jaamu di muñ ca jaamu ko sellal ga dañ cee muñ istabar istabara yastabiru mi ngi jóge ci sabara sabara mooy muñ na léegi bone ne istabir mooy mooy dolli ku muñ lool xam nga sabara mooy muñ na wante istabara mooy muñ muñ maanaam muñ gu metti istabara muñ googu moo gën a kawe sabara kon léegi jaamu yàlla yow euh, euh, mi nga xam ni yow jullit bi boo jaamu yàlla na nga ci ànd ak muñ gu dogu muñ goo xam ni dafay muñ gu foor a foor boo dépensé muñ lépp loo amoon ci muñ muñ gu foor moom foo ko dépensé ci jaamu yàlla jaamu ko day mujj nekk lu neex ci yow day mujj nekk lu woyof nekk lu neex ci yow day yomb wante euh, bu fekkente ni àndul ak muñ tàyyeel jaamu ko day ñett ci yow ngay tàyyeel bu fekkee fa julli farata la doo bëgg lu dul asalaamaaleykum bu jóg bu jóg dem sa yoon doo ci teg naafila tasab sax doo ko def doo ci teg ay tasbixa doo ci teg dara da ngay jóg ci saas dem sa yoon lu tax ndaxte jaamu gi amul muñ amul istibaar muñ goog muñu muñu istabir moom la amul moom moo tax yàlla bu ko waxee yonent bi ñu ko fas faabudhu wastabir li ibadatihi kooku yàlla ma ma ngay wax ak ñun lu tax ndax yàlla dafa ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju yarju llaha wal yawm al axir koo xam ni yaakaar nga yàlla ak yawm al qiyaama na la leer ni am nga royukaay bu rafet ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw léegi nag euh, kon euh, li yàllay digal yonent bi jàppale ndigal loolu dafa ñëw ci yow hal taalamu lahu samiyan déedéet laaj bi moom déedéet ngay xam est-ce que sa borom bi nga xam ne mooy rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma est ce que xamal nga ko turandoo est ce que xamal nga ko ab kem est ce que xamal nga ko ab nuruwaale nur nuruwaale déedéet déedéet yàlla amul kem yàlla amul niraale moo tax Serigne wax na ca wala fal ba daani amul niraale amul it gam-gamle du dendandoo du àndandoo kuy ngëble yàlla du baay du ndey du doom du kenn nay wéttalam moom rek rek ak la moom ak sañ-sañam kon gis nga moom la moo tax yàlla ni hal taalamu lahu samiyan ay aaya boobu moo làmb lépp moo làmb ne yàlla amul turandoo moo tax gis nga baatu allah musoo gis ku ko tudd daa man allah laa déedéet li firawa di bon lépp ba muy wax waxul ana al ana allah dafa wax ana rabb rabb rububiyya la tudd daa ni ana rabbukum al aala amma allahu déedéet wax na wax na maa alimtu lakum min ilahin min ilahin wax na ilah ak allahu bokkul ndaxte allahu alam la mooy alamul alam maanaam tur bi gën a kawe ci tur bi baatu allah dañ koy fajoo dañ koy xettili dañ koy xettili dañ koy ñaane dañ koy defe lépp baatu di wax allahu dong ngeneel la ak xettiliku la ay tuyaaba baatu di wax allahu kese kon allahu kenn du ko dendaleeg wenn nu moo tax yàlla ni yéen tamit ni ko hal taalamu lahu samiyan déedéet laa alamu lahu samiyan amul te du ma sa amit nag yàlla nanguwul kenn di wax ci ñam man maay allah seetlu ko rek même ñi nga xam ni boo seetloo wala fi même ñi nga xam ni abdullahi moo seen tur dem ba yàgg ñoon la ablaay nga dem ba naa ana laay laay ana laay mi ngi si xam nga laay ngay wax laay du dara laay du dara L A A Y gi e, loolu loolu déedéet waaye fekk jëm kër daani Allah lay laaj ana Allah mi ngi si loolu doo doo ko a dégg Abdullah ngay wax ana Abdullah mi ngi loolu da nga ko dégg waa yaa ngi dégg bu fekkee ne ko ci yàlla dafay tourner sa gémmiñ nga nga wax laay waaye doo wax allah lu tax yàlla amul turandoo hal taalamu lahu samiya moo tax ikrima jëlee eh, ci ci ibne abbas laysa ahadun yusammi arrahman laysa ahadun yusammi arrahman gayrahu tabaraka wa taala amul kenn kuy tudde rahman kenn ku dul yàlla daan ni daan ni diw mooy rahman dee dee dee dee yàlla amul turando rahman melokaan la moo gën a rëy ci maanaam melokaan mu gën a yaat ci melokaan moo tax amul nit mënu koo tudd ni ni nga xamee ni allahu alam la alam la moo gën a kawe ci alaam yépp moo tax nit mënu koo tudd yàllaay bañ mënu mënta nekk loolu mënta nekk yàlla di ñëw ak ñun ci yéeféer yi nga xam ne dañuy foowe seen borom di ko di ko sofantal lu leen neex ñu koy wax ci yàlla daani waaw a ida ma mittu la sawfa uxraju xayat yàlla daani wa wa yaqulu l insaan doomu aadama bi insaan bi nag lim ci jublu mooy yéeféer bi la ci yàlla bi léeg yàlla dafa wax al insaan jublu ci yéeféer bi léeg mu ni insaan jublu ci euh, ñëpp ba mu des maanaam jublu ci euh, ñi nga xam ne duñ ay seetteet ñi nga xam duñ ay jullit léeg mu ni insaan nag jublu ci ñëpp nag léeg-léeg mu ni insaan jublu ci doomu aadama yëpp la jublu kon fi yàlla wax arrahman allama al quran xalaqa al insana allamahu l bayan xalaqa al insaan boobu insaan boobu ñëpp la ci jublu wante insaan bi nga xam ne yéeféer bi la ci jublu mooy wa yaqulu l insanu a ida ma mittu la sawfa uxraju xayyan ak tamit awalam yara al insanu anna xalaqnaahu min nutfa fa ida huwa xasimun mubin kooku doo kooku dafa am kum ci jublu mu am al insaan boo xam ni euh, mi ngi ci jublu ay yéeféer comme wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat kooku bu fekkente ni inna al insaan la fi bu dee bu dee insaan boobu mooy doomu aadama yépp jumla si doomu aadama kon illa alladina amanu day nekk istisna muttasil bu fekkente ne nag euh, inna al insana la fi xusrin loolu mi ngi ci jublu yéeféer yi yéeféer yi maanaam yéeféer bi la ci yàlla jublu kon illa alladina amanu illa googu du nekk nekkul istisna muttasil munqati lay doon istisna munqati ndax fu mu ñëwee ci alquran rek wala fu mu ñëwee ci làkku arab li muy firi mooy laakin bi maana bi maana laakin ala kulli xaal yéeféer bi fii wa yaqul insaanu fii yàlla yéeféer bi la jublu muy wax di kokkali naan waaw a ida ma ndax bu ma génnee ndax bu ma deewee a ida ma mittu gi nekk ci a isa maam it ma ma zaida la maawu ndollant fépp foo gisee maa ñëw après isa rek jàppal ni maa googu maawu ndollant la arab wax moo xam nga fekk ci alquran ndollantik alquran nag day day day day maanaam maanaam njariñ lu rëy lay firi xam nga bu neen ndollant doomu aadama attan na koo dégg ni ndaxte li nga xam ci ndollant mooy loo xam ne bu fa nekku nekkuloon tamit loola euh, day dem loolu lañ xam ci ndollant nga xam daal faydaam du bari déedéet bu dee ci alquran nag duñ ko defee noonu dañuy dañuy sàmmonteeg tegginu alquran dañ koy fiyee si la loo xam ni yàlla def koo feddalee li muy wax bu dee ci alquran wante qaida bi moom mooy maa fu mu ñëwee après isa rek zaida moo tax benn waaye dafa dafa ni yaa yaa taaliban xud faida ma baada isa zaida yaa taaliban xud faida ma baada isa zaida mu ni waaw léegi est-ce que ndax bu ma deewee la sawfa uxraju xalfet nañ maa génnee ma dekkiwaat xayyan di dund est-ce que loolu loolu nag euh, yéeféeru màkka yi euh, ñooy wax loolu ñi nga xam ni gëmuñu gëmuñu yàlla subhanahu wa taala yàlla di ko fàttal ni ko waaw yow awala yadkuru l insanu anna xalaqnaahu min qablu wa lam yaku shay'a ndeysaan moo tax yàlla wax na ci alxadis qudsi xadis bu wér yonent def ni yaqulu allahu taala kazabani ibnu adam wa lam yakun lahu an yukazibani wa aadaani ibnu adam wa lam yakun lahu an yudini أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من آخره waaw loolu def dëgg yàlla loolu xel xel bu ko amul xam-xam sax gëmul yàlla sax xanaa bu ko bu ko déggee xam ne loolu mooy li yenu maanaam wa ma adaahu iyaaya fa qawluhu inna li waladan wa ana al ahadu samadu alladi lam lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad maanaam ci ci ci gàttal yàlla li mu wax ci alxadis qudsi bi doomu aadama weddi na ma te amul mukk mu war maa weddi lor na ma te nekkul di ko ñeel mukk mu war maa euh, di ma lor weddi gi ma weddi mooy li wax ni man de bu ma xasee génn àddina yàlla dootuma dootuma delluwaat ma nekk euh, ma nekkaat ni dées loolu du nekk moo tax a iza mamittu la sawfa uxraju xayyan ak tamit fi yàlla waxee ni awalam yaral insaanu anna euh, awalam yara al-insaanu annaa xalaqnaahu min nutfatin fa idaa huwa xasiimun mubiin xasiimun mubiin wa daraba lanaa masalan wa nasiya xalqahu qaala man yuhyil idaama wa hiya ramiim yàlla daan wa laysa awwalul xalqi bi ahwani min aaxirihi maanaam ka nga ka nga xam maanaam njàlbeenu bind kay bu fekkoonte dafa am luy luy luy jafe ci yàlla njàlbeenu bind mooy gën a jafe. yàlla bind njaal benn bind moom weddi ko yaa ngi ni taxaw kon kon njaal benn bind bu dee bu dee am na luy jafe loolu moo gën a jafe bindaat la indiwaat la nga beesawaat la bu fekkonte ne dafa am dangaa woo sa benn menuisier ko defaral ma euh, table bu ma teg samay téere ak banc mu defal la banc ak taable nga nga teg say téere di ci di ci liggéey wala nga di ci jàng wala nga seet loo ciy def nga dem ba ab jëmmi jamono ba mu am at ñaari at nga tasewaat ak moom ni ko yow taabal jëm nga defaloon daaw jig day taabal ji daa yàqu de dafa yàqu mu ñëw di la ko defaraat mun na waaw dinaa fa ñëw suba defaraat defaral la ko est yow te koo kët ab ab mbindeef dong la li lim man am na fu mu lim man am na fu mu yem te lim lay defaral maanaam garab gam la ko defee jëmbatu fi garab def def fi dara maanaam saxalul garab ga laa bëgg a wax dénk bi daf koo jële ca àll ba fekk mu ne fa fekk yàlla def ko fa mu jël ko xas ko ba mu nekk dénk mu mu mu koy mu koy mu def mu koy def jumtuwaayu menuisier du ko def di ko defar mu nekk bang te yow bu ñëwee di la ko defar sil amoo sikk sàkk ci ni kii dana ko defar lu tax moo ko defaroon bu yàgg moo tax yàlla ni wa huwa alladi yabdau alxalqa summa yuciiduhu wa huwa ahwanu alayhi yaani al iadatu ahwanu alayhi bu fekkonte ni am na luy yomb yàlla am na luy yomb ci moom luy gën a jafe kon kay defaat bi mooy luy gën a moo gën a yomb kon doomu aadama bi naan man est-ce que bu ma génnee àddina bu ma deewee dinaa dekkiwaat yow yaa ngi dund xam nga ni yàllaa la bind kon yow sax dekkiwaat wóoroo ci wóoroo wóoroo ci sikk sàkk moo tax yàlla ni awalaa yëg moo tax yàlla tontoo ko xam nga yàlla ko waaw néew ko waaw néew ko dee waaye dafa ne ko awalaa yadkurul insaanu uslub bi uslubul hakim maanaam xanaa doomu aadama mënta fàttaliku xanaa fàttalikuwul ni annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min qablu la njëkk léegi la njëkk tey jii muy muy wax nii walam yaku shay'an te boobu nekkul dara ndox la woon rek ndox moomu ndox moomu sax maa ko bind def ko ci def ko ci way juróom wu góor mu jóge ci way jur wu góor ci kàttanu yàlla dem ci way jur way jigéen foofa yàlla ndox mooma mu am ci fum ko garde moo tax am fu mu garde ndox mi loola ndax ndax dafay forme doom mu am fu ko yàlla teg foo xam ni da koy da koy koy da aar baloola loola du yàqu mu tax yàlla ni alam naxluqkum min maa in mahin fa jaalnaahu fi qaraarin makin qaraar kañ ila qadarin maalum fa qadarnaa fa ni'mal qaadirun waaw ki def lii ci jamono jooju yow dekkal la dekkal la mën nga ci awala yadkuru l insanu anna xalaqnaahu min qablu walam yaku waxoon naa ni foofu lañ koy yemale euh, ba ñuy jël lu bëree bëri euh, ñun nag suñ tafsir xam naa ni mën naa am lu xaw a wuteeg tuuti rek tafsiru ñu baax ñi fi jaar boroom xam-xam yi euh, ñoom macha allah dañuy ñoom seen xir dañoo bëgg dañoo bëgg a Euh, dañoo bëggal euh, waa group gi wax dëgg yàlla xam-xam bu bari rek ak bëggal leen moo tax bu ñuy tafsir macha allah dañ dañuy sotti lu bari dañ koy sotti ci xam-xam euh, sans masse gi nag ñun buñ ñëwee dañuy def ndànk rek xëy na duñu yàkkamti ndaxte daf ñu daf ñuy leer ne xam-xam xam-xam bu bari ba moom sotte sotteef sotteef na ko fi ba pare waaw ah, kon nag ñun bu ñëwee dañuy maanaam barkeelu rek comme ni ñu koy sàkkoo ci ñun ñu ngi leen gërëm leen sant kon léegi dañ koy yemale ci euh, lii rek euh, boo seetloo ñaari aaya ñetti aaya lañ fi waaye li man li ma ci ëpp solo rek mooy aay bu ñu jàll rek nañ xam euh, naxu beeg balaaxa beeg lépp rek li ci am ci ay ahadis yëpp ñu indi ko Euh, di def par ndànk par ndànk par ndànk ba fu neex yàlla insha allah ñu yem ñu yemale ko wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh